leen Diouf Bombardier ngi noonu ndeysaan ngeen jàkkaarloog mbokk yi yéen ñuy bàyyi xel sur Dakar bi tool comme ñu koy defee spécial la Bombardier ngi noonu di naan ndox Bombardier li muy naan biteelu lan la Bombardier biteelu lan lay naan ah est-ce que ndox simple la tamit Bombardier ngi noonu la grand champion borom Mbour ay grand combat lay bëri moom Fara Ndiago nee naa leen bu muy mujj fii rëg-rëg moo koy mujjee daan tey ma war a ñëwaat di faaru koy daan wala mooy daan kan moo ci daan sa morom te si kanam tuuti lay leer Bombardier ngi noonu borom mbuur a noonu moom Bombardier Bombardier ngi noonu ndeysaan waa jaan ci suuf am na lu muy gas waa jaan ci suuf am na lu muy gas li ba jàmm Bombardier ngi noonu ndeysaan cubukaay Bombardier yaa ngi noonu jël nañ ku nekk ñetti ku yor téléphone bay manipulé teg ci li nga xamante ne mooy leket bi Bombardier ngi noonu ci leket bi Bombardier ngi noonu cubukaay yaa ngi noonu ndox mi moom ndoxu naturel la wala est-ce que lii ndoxu naturel la Bombardier ngi noonu ak confiance Bombardier ngi noonu ak confiance ndeysaan Bombardier ngi noonu ak confiance Thank you. toog sol benn ensemble pour suuf pour la balaa Bombardier ngi noonu ndeysaan mbokk yi yéen ñuy bàyyi xel ci Dakar People comme ni ñu koy defee spécial lamb journée jàmbaar bi lañ leen di toppal grand combat bi ci diggante Bombardier ak Fara Diago bu jàmbaar ndeysaan kay Bombardier yaa ngi noonu mais ndox yi set na de Bombardier ngi noonu toog Bombardier ngi noonu mbokk ndaysaan mbokk baa ngi ci digg bi dox ci diggante Franc ak ak Bombardier ginnaaw bi spécial bi jàllee Youssou Ndour ak Talfa gamer bi Youssou Ndour am ndam ci kaw Talfa ndaysaan lamb de mérité woo Talfa lamb nii la bi nga fi mujj nga fu mujjee ndaysaan mbokk yi arbitre sifflé na combat bi Bombardier Franc Bombardier Franc Bombardier moo ñu woon ginnaaw Franc moo jàkkaarloo ñun combat bi de combat bu nar a gaaw lay doon boo xoolee Franc oh Bombardier touché na Bombardier dóor na Franc tërëf na Bombardier dina ko rey oh Bombardier Franc Bombardier Franc Bombardier Franc Bombardier ndeysaan xeex nañ xeex bu métti Fara Ndiago am na ndam ci kaw Bombardier ndeysaan mbokk yi Fara na ndam ci kaw Bombardier ndeysaan oh Fara daan na Bombardier Fara Ndiago daan na Bombardier ndeysaan mbokk yi oh cay nañ xeex bu métti ndeysaan mbokk yi Fara oh Bombardier ngi noonu di génn ndeysaan gis nga gaañuwul ci tànk moom Bombardier mi ngi génn dox di ñëw ndeysaan mbokk yi oh ginnaaw bi Franc amee ndam ci kawam Bombardier ngi noonu di dox di génn ndeysaan mbokk yi Bombardier est-ce que gaañuwul ci tànk Aïcha tànk bi est-ce que gaañuwul oh massa làmb nii la Bombardier jàmbaar nga wane nga dundale ci làmb te roi des arènes ñaari yoon làmb nii la tey Franc la yàlla jox ndam ndeysaan Bombardier mi ngi noonu ndeysaan def na lu ne ci làmb démérité woo lamb nii la ndeysaan oh Bombardier ngi noonu ndeysaan ay waay Bombardier ngi noonu mbokk yi ndeysaan oh lamb nii la Bombardier bu ñaari yoon amatoo dara looy dabu ci lamb Bombardier ngi noonu tànk bi dafa mel da cee gaañu ndeysaan Bombardier ngi noonu Aïcha tànk bi da cee gaañu oh, Massa ki la daan war na laa daan Franc lamb nii la amatoo dara looy dabu ci làmb supporter jox ngeen lu ne ci làmb Bombardier ngi noonu Bombardier ngi noonu ndeysaan Bombardier ngi noonu di dox di ñëw Bombardier ngi noonu ndeysaan mbokk yi tànk bi am na lu si ne bi ko fara ba pare